si sa félicitation sama yaay yow la bëgg ba ci ndey ndaat daf ma daan paas ay sër dañ may paas seen ay mbokk ne ma sama yaay moo la bëgg pote sama lii ma xam ne ñii ma bokkal liggéey bi yéene nañ ma lii may def

une fois mu ngi defar encore une fois ñu jaajëfal yi ma daan seetaan peut kon moom xamoon na ma te man xawma ko naa ci àddina ba ci samay proche xamoon nañ ni tôt ou tard day nekk sama jabar bu ma la gisee rek damay gis sama bopp ci yow am na xaritam bu fi ñëw temps yee ñu invité ko mu dugg si rek ñuy waxtaan mu ne ko Malick yaa ngi fàttaliku benn anecdote kii ñuy seetaan Dakar na door pa ñuy wax si Amina mu ne xamoon naa ne Amina du la rëcc. boobu Malick ñëwagul États-Unis hmm. comme man nitu principe la franchement damay tànn ba pare dama am loo xam ne euh, dama ko sopp ci nit. Hmm. man mën naa nopp kuy naan sàngara mën naa nopp kuy tux mën naa nopp kuy sàcc mais man sama problème mooy na sa xol rafet ba pare ñaar yi laay wut ci góor sa xol na rafet te nga nopp ma ba bu ñëwee ci li fekk ma mën laa wàññi comportement la xool ci nit mhm. sama Malick mii sama digganteeg moom destin la mhm. parce que Malick sama benn frère bu tudd Papa Laay moo ko présenté mu jaar ci xaritam Sankara Mbay mi mi mi ànd ak Malick mhm. mu ne ko Sankara man Amina Poté laa bëgg mu ne Sankara wax ko ci lu rafet na ko Amina day demul dikkul sama sista la ku baax lañu ñu séq teraanga mais miinuma ko mais am naa sama frère boo xam ne moom Amina nii lañu ñu def muy papalaay kooku sama frère la chéri Codou Sankara dox ko papalaay ba mu ma njëkkee woo comme man ku ma fréquenté xam sama caractère dooma man kenn duma may far ndax man duma ku présenté góor papalaay pour mu présenté ma Malick lu ko tiis la woon te daf ma jege miin ma lim ma wax Amina mu ne ma ne ah, mu ne ma noo def yaa si jàmm ma ko waaw mu ma booy xam nga naar bi ma ko one is ki naan na jàpp naa naar bi mu reetaan comme man dama neex mu reetaan ne ma déedéet du kooku kii nag mooy papaay ñooñu ma ne ko ah, ah kooku foor na di xam nga moom ko jay dof mm-hmm. ko ba mu ah, yow level yéeg na di mu ma léegi nag moom dalay seetaan dalaa ah comme man djeluma dara au sérieux man bo mané nee day ñew suba sa kër ma defar sama kër pour saga sama bop mais fokki suma ci jomaay est-ce suñu relation dina dem hmm. ma daane ko ah ñu bay non mu xeyeti woma né ma boy xana bëggo petit lay dem États-Unis man ko ay papa lay lolu moma ma teree nelaw ndax petit tax man mënuma dëkk Amérique parce que mënuma ko comme kayitu Europe la am mënuma ko yobbu Amérique petit moy sa dom bi mooy sama doom bu góor bi. ma ne ko man te fi mu ne nii Amérique comme dama fi wasin si woon am loo xam ne dama leen ko deseel ci xaalis wóorul ma dugal Petit Laye di ko ñaanal visa ñu yàqaale man cinq ans yi ma dese. mu ne ma nag naar bi boo boo xamanteeg moom suba Petit tukki. Ah. waaye comme man dama yàgg tukki xam lu bari xam naa ne affaire yi doxewul noonu. ma ne ko ah moom mu ne ma ne ko ma peese ko. ni ko bu bëggee ma fay mu ne ma kii du la fayeeku gratuite ma ne alhamdulilah kon kii buntu lay wut pour dugg ci man ndax bu bëggee ma fay mu ne ma non doo fay dala kay may ma ne ah lii dese naa wóor ñu bàyyi noonu naar bi de këram laa demoon mais yow la doon waxtaanee ma ne ko waaye bi ma ne ko naar bi naaru lan la naar bu xees la wala naar bu ñuul mu ne ma naar bu xees pecc la ne ko ah loolu doy na waar léegi naar bi yéen kañ la fiy ñëw man ma gis ko maa ko gën a fan tombeek ma war a def palaato ma taxaw ca télé ba manit naan boobu maa ngi soog a am sama problème bee kuccaa giwin laa du giwin ma taxaw ca plateau ba comme man bu may stressé foo ma fekk damay déliré man je fréquente personne espace bi may toog fa laay waxee sama lépp ndax awma xarit demuma dikkuma mm. boo toogee ci télé bi rek dangay dangay tas li nga am lépp ma toog ci télé ba naan sama xaritu naar bi. Ah. Malick Fall naan sama waaj nit ñi commencé naan waaj kuy ma ne leen xamoo leen naar bi wan xbet man maa ko jàpp ndekete dootoo leen gañe kafan xali Californie ah. naar bi maak moom waxuñu waxuñu waxuñu ba ca benn bés papa ne ma naar bi dafa bëgg ceeb bu weex toggal ceeb bu weex ma indi ko ñu añ si man papa laay man aw ma jot damay lig mu ne ma booy sa doom fexeel naar bi ñëw fi yóbbu ko États-Unis mm-hmm. ma togg añ ceeb bu weex ndugg samay crevette ak sama yu baax maa toggal sax sama bopp keroog naar bi ñëwul ñëwul ñëwul ba 16h ma woo papalaay ne ko papalaay yéen fu ngeen nekk du ngeen ñëw añ mu ne ma naar bi yaayam dafa feebar mm-hmm. mu ne ma léegi dañuy reporté yenn bu yeboo bu mu joxewaat li mu bëgg a añee ndax man li may añee gan bu ñëw mën nga cee añ bëgguma ku changé waat sama sama sama plat mu ne ma amul problème noonu naar bi ñëwul ñëwul ñëwul ba jour bi muy ñibbi Amérique ah. boobu dollaram jeex na ci dëkk bi te comme moom daa tobe ba ñu ci ba summeeku may la naar bi dooga ñëw sama kër ay vingt dama toog rek kii woo ma papa ne ma foo nekk ma ne ko man maa ngi sama kër mu ne ma maag naar bee ànd ñu ngi ci suuf ma ne ko yéegal mu ne ma xaaral ma paase sa gardien bi ma gardien bi bàyyi leen ñu yéeg ñu yéeg bañ yéegee sama frère bi yéeg naar bi yéeg ak sortu bërbëri ah. naar bi yéeg loolu Californie kenn mënu la ko nekk li naar bi yéeg ak ak sortu bërbëri ak t-shirt rek ma mer nag waaw <laughs> ma ne xaaral comme gan la. sama l'essentiel na xaritoog man wax ma leneen mais kii sol short ni dugg sama kër il n'est pas présentable. non na fait pas la ñu daal di toog di waxtaan ma tamit macha allah ma mer. kii kii papa ma ne papa waxal ak sa naar bi. ma ne ko yow sax naaru nga mu ne ma waxuma ci naar man yow laay wax ndaw si boo paree pare naa ah waaye naar bi looy pare fii fii dara pare wu fi mu ne ma ah kon nag baax na mais man moom boo paree pare naa ma ne ko man c'est sama problème du affaire pare mais man duma sa morom ah. ma ne ko man duma nobantee ku sol short ah. def sa ay xaw ma Air Max nga sol xaw ma yëpp. dafa mu ne ma li ma sol yëpp fayal na la fii at ma ne ko yow ah, rek. ah. régleel moom de xuloo ma ne ko yow régleel sa kii. ay naka laa leen romb dem di defar yi tableau pour ñoom mu ne ma man du ma naan ma ne ah xëy na mooy góor ñi nga xam ne bëgguñ lekk fenn ñu liggéey leen am na ñoo xam ne duñ naan duñ lekk. mu ne ma ah, man damay dem aéroport du ma naan ma ne ko ñun duñ la liggéey de. mune ne ma noo amul naan naanu ma lekkuma ma ko ya xam mune ne ma mais ndaw si bëgg na la dangaa jox dangaa taaru ma ko man duma duma duma duma nopp xalé te ni nga solo xalé nga mu wax ma wax mané ko man franchement intéressé wu ma ci yow mané ko nak da nga bax mën nañu xarito mais moy dem yëkëti 1000 dollars ah. aji cham ah ci premier ci premier nobbu ma la xoolu ma la. borom kilot bi. borom bàyyi fa jamaa ak 1000 dollars. jaaro jamaa ak 1000 dollars. bàyyi naa sol jas neer. tey. defee loolu xam naa mu foog na yóbbu na bopp xale bu jigéen bi. Hmm. mu dem ba ci buntu kër gi ne ma ndaw si xalaatal ma ne ko ay naar bi. man mënuma xalaat ci yow dara parce que franchement man daal xaw mënuma xalaat ma ne ko kenn nekk fi ma ne ko mais yow moom ah, sa sa sa compo sa sa colin quoi ça me dit rien pas colin bi mais mayuma ma wax cëfër cëfëram ah nga xam nga su ma waxee mu ne ma bul wax yow nangu rek ma ah. tàkk la mu ne ma yéen doomu oto yi ngeen di dawal Sénégal amu leen ay oto man dama lay jox ngandam range ma ne ah. dof la naar bi ëppal na de waa ma ne kii man duma wax ak moom ma mu daa di dem mu ne ma kon kaay gunge ñu aéroport wala ma puus sama billet bi Pape Laay na ko mais puusal sa billet mu ne ko mais damay liggéeyi jeexal naa tàkk ba leneen ci samay jour mu ne ma mhm. kaay ñu dem aéroport ma ne ko yow kan nga nga gis ma tey nopp ma ma bañ bëgg ma mhm. gunge la aéroport mu ne ma loolu du dara xam nga ñun ay américain la ñu noonu ma ne ko yow man duma americain dew ma aéroport te damay tëdd ba demee nag déggantewuñ déggantewuñ message bi maa ngi ko denc déggantewuñ déggantewuñ ba am quatre mois ah boobu maa nga France di jaay te boobu bàyyi na fa jamaam ak mille dollars moom woowu ma ko quatre mois ba pare mu mu dégg naa ci suuf mu ngi doon wax ak xaritam naan ko booy xale bi de woowu ma xanaa joxu leen ko sama numéro ñooñu ne ko jox nañ ko ko seek yow kii nii dafa kii du genre yooyu affaire yooyu. waaw boobu mu ngi boobu boobu dogguma la mu ngi yaakaaroon yow nit ko ko ko koy topp ne ndax alal nga mu ñëw jox la jamaa jox la kii pour moom boo xëyee rek da ngay woowi say mbokk yëpp ne wuy sama day kaa leen jàppale ma sinaar bi. parce que nag nga woon ko dara toppul sa bët. xale yu jigéen ñi souvent ñooy dofloo góor ñi k la may ñaar fukki junni nga kali mille dollars six cent mille CFA la billaay wallaay man six cent mille mënuma ko dépense bu dee Sénégal laa nekk six cent mille sama dépense su semaine la kali ñi may ah. fréquenté xam nañu ko te mille dollars yi noonu mu ma ko joxee kilifa moo ñëw sama kër di tukki wax na la ko ma yëkkati ci quatre cent dollars may ko li ci des ma mayee ci ay cent dollars samay xarit lekkuma ci dërëm ba tey jaaro bi nag bokk na ci cadeau yi ma mës a am yi ma gën a neex ci sama àddina. ah jama jama du fi ne feer mhm. bi. dama naan kii fonk na ma. Ah, waaw donc ko mérité. maa ngi ko denc. Mhm. ñu jóge ci loolu quatre mois ma nekk France di liggéey di jaay ci internet bi ay yére ba benn bés. ma gis Adamo di wax ci moom. naan waaw Malick Fall naar kii nag. sama papa sama xarit la bëgg Wally Seck tak tak tak ma woo ko non non non astafurlah ma vocal ko vocal baa ngi fii ma ne ko Malick namu naa la sama naar bi mbaa yaa ngi ci jàmm hmm. ma xoolal lien bi ma la yónnee te nga moytu hmm. ma ne ndaxte xale nga mais kilifa nga boo bëggee mucc rek ma ne ko bul sax dugal sa bopp ci affaire man xamoon sax nii la mel de dugal sa bopp ci affaire mm-hmm. ma sa message ma gisee mu bind poté kaw mu bi daa jóg rek vocal ma ne ma allo Amina Amina sa message bii nga ma yónnee ma liir ko xamoo lan la def ci sama xol bi mm-hmm. Amina foogoon naa yow fàtte nga ma lii mënuñoo vocalante bu fekkee permettre nga ma te moom Malick ba moment yooyu ba muy wax ak man day wax comme intellectuel ku nekk université xam nga souvent nit di ko nopp ci ci ci comportement am ci ni muy waxee ci ci kalmam ma lire message bi mu wax ma loolu ma daadi ne ko mukk yow duma la mës a bàyyi yow yaay sama naar kenn du bàyyi woo ko ah. ba ma ko woowee ne ko Malick noo def mu ne ma si Amina sa woote bii parce que su ma juumul mi ngi semaine boobu bëggoon na bu gisee ku baax rek takk parce que soxla na jabar toog na douze ans amul jabar hmm. mu ne ma sa message bi li mu def ci man munoo ko xam ndaw si bëgg naa la de Malick man moom duma la nëbb mais ñemewuma affaire jëkkër ma ne ko léegi bàyyi ñu xaritoo xamante ba ci kanam ça fait que nga xam ma ma xam la hmm. mune ne ma non man mom xarito wuma ko yow nag ku fuy nga kon xarito wo nak manit sëyu mune ma kon baxna malik Malick coupé ma coupé fu 5 6 heures France joté malik dina ma wo suma wowe génn kërëm rek malik man lay njëkk wo te malik suma wowe woowee liñ naan gis nga adina jox nit confiance dafa doy waar te jigen lu ko nax dafa yomb man oo oh, bi ma Malick di woo six du matin mu génn këram dugg biroom bu duggee biroom boosam la àndal bu paree ci boosam restaurant lay woote ñu indil ko añ biroom mu añ fa su paree summiwaat buluusam solaat jóginam hiver la woon taalaat otoom duggaat këram ñuy wax ba ma gëmmantu ne ko ba suba confiance bii laa am ci Malick ne ah pourtant moom kat il est responsable ma woowee fajar biroom lay dugg te du coupé ba ma nelaw hmm. gisuma ko ci benn ñàkk fayda chaque jour mu ne ma ndaw si pare woo ma ne ko ah man li ma wan bu fekkee ne mooy sa vrai jikko hmm. franchement man neex nga ma ma ne ko nag neex nga ma du bëgg naa sëy ak mu ne ma man ndaw si nii laa mel mu ne ma man aw benn problème man nii laa mel man tamit wax dëgg fa yàlla am naa frère frère ma bëgg ko ci comportement bi mu yore xëy liggéeyi wàcc dugg këram ndax man dama bëgg nit koo xam ne dangay ngay responsable téye sa tànk téye sa loxo téye sa gémmiñ man lii rek laay xool ci nit ma gis ne ku bëgg njaboot la chaque minute maa ngi koy dégg muy dugal këram ay dépense ay xaalisam comme man ni ma mel ci sama njaboot man dama ku bëgg njaboot ma bëgg la mu présenté ma yaayam ne ko yaay dama gis ku ma bëgg ko tudd Amina Poté war nga ko xam yaay na ko waa dama koy dégg mu ne ko man kooku rek laa bëgg yaay yaayam nag moo def différence ma accordeel ko mariage bu gaawee noonu ah. ndax man ku ne mën naa ku ne mën na maa nax ci yaayam mhm. yaayam ñu def appel trois mu ne ko yaay Amina ngi si ligne bi yaayam ne ma yaay booyam na nga def olof bi setul ma na ko maa ci jàmm sant bi mu ne ma meng ma ne ko man suwaay bi ñu jàmm sant mu ne ko yaay kii laa bëgg a takk mu ne ko bu gënee ci yaw Malick yàlla na nekk sa jabar mu ne ma sama doom la sama xarit la mu ne ma maalikam ma ne ko luy maalikam Malick mu ne ma mooy sama Malick naka laa ko ne Malick lan mooy maalikam ci appel 3 bi mu ne ma mooy sama Malick pour laa am kenn ci gaañu na yàggul dara mu ne ma ma dese Malick dong te Malick fekkoon ma tey fii ma dëkk fii laa mës dëkk am fi ay néegu ñax am fi tool bu may jaayee bisab ñu ma koy jaayeli mook magam ma leen ciy dundal parce que Seydina Mouhamed maire bi dafay wax loolu kari sama rongo ñuy tuuru mu ne ma man dey ku baax ku ma dul tàqaleeg sama doom laa bëgg ndax hmm. ñaar lañu woon kenn ki gaañu na te kii sama maalik la maalikam bu baaxee te du la say waajur maalikam tëyal léegi liy indi ma bëgg maalik bëgg yaayu maalik bëgg ay doomu maalik maalik sëyaluma ko ndax dama ko nopp ku ko bëgg laa mais dama ci dugg ndax ne naa gaaw récupéré ko balaa beneen jigéen di ko jël ah. ak ni mu mel di ko taqaleek yaayam fekk na yëpp bañuma ko ndax wax dëgg fa yàlla nit ko présentable la ku bëgg lu baax la ci boppam mais kàddu yooyu yaayam wax billaahi wallaahi wa taalaahi man damay yërëm dooga nopp ah. mbëggeel dëgg ku ko xam xam ne koo sëyal am na loo xool ca moom ba yërëm ko nopp ko nit dina am lu ne gàññi ba pare nga ñeewantu ko maire bi ne ko man daal maalikam man daal sama maali koo bëgg bëgg naa ko mais bëgguma kenn koo xam ne daf lay tàqaleeg man ndax yow rek laa am. Hmm. ci laa jël li ma doon xalaat ci maalik temps beeg ndax ku baax laak ku bon laak day dorogeeg day sàcc yépp ma jël ko lem ba mu jekk dugal ca mbalit ma décider koo sëyal te yàlla tax ah. ne bu ma duggee lu ma fa fekk lu bon bu dee nopp na ma danaa fexe ba wàññi ko fexe mu nopp ma bëgg yaayam gën a uuf njabootam lu si lii rek ka ma dugal ci Malick. lii lu si nit man. ma ànd ak moom nag wax dëgg fa yàlla ma accordeel ko mariage ñu may ko jabar xëy na mën nañ jàppante ci yi xew ci internet yi mais Malick ñi ko xam dëgg ndax jabar mënul seedeel jëkkër hmm. moom daf ma naan yow dooma faral ma ne ko man duma làkk doom duma làkk jëkkër man doomu làkk kat laa lépp ci digg bi rekk dama naan ko Malick am ngay qualité yu ma neex mais dangaa bari defu hmm. defa Malick du dara lu dul ku ko wax mu màtt la dëgg mën na wàcc léegi yor vingt mille dollars ci poosam nga nax ko nax comme xale lekk ko hmm. amul yooyu problème mais bu la yàlla bañee ba nga def ko lu tuuti xoolul ku taxaw ci àddina ku bawul police yi ci dëkk ba wo kenn. macha allah lii ñu booleeg maaj macha allah donc gars yi ba léegi rek macha allah ñu bàyyi ko mu xawa noy tuti na ndox yene ngi suivre live bi boobu ba léegi yaakaar naa ni comme dama koy waxee rek li Amina Poté nek di len wax bu len intéressé wu len heure bi dem ngeen bu yàgg parce que ñu ngi dooree ci ben nit ba 2 ba 3 jamono ji ñu ngi ci presque 12000 personnes tok di seetaan. c'est parce que lu ñuy wax intéressé na leen nañu continuer di tappate rek yi am na fu ñu ko teg te respecté nañ ko te ñi ko xamutoon nag ba ñu déggee tey jaar-jaaram ku ko nawloo nit à partir tey di nga ko naw parce que lii rek la ñuy wër si jigéen jigéen lan mooy sa taar mooy nga sëy jigéen ñu bari ñu ngi Sénégal di woote ay manaken lañu di woote na dañoo am rafetaay di woote nag ay star lañu bëgguñu sëy mais li leen Amina Poté wax wax na leen ko fu mu jaar ba dugg si sëy ba yàlla weddi ba tey jii bu ko neexoon mu ne pare na si góor bu ko neexee chaque semaine mu ñëw Amérique wala Japon wala ko neex ci àdduna bi fekk du am jëkkër gis nañ Sénégal nag wax dëgg yàlla mais moom mu ne ak jëkkër lu mënti mel bëgg na sëy bu fekkoon jëkkër gi naan katu sàngara la sax dina def le tout ba génnee jëkkëru googu di naan sàngara loolu si nit mën te mu wax leen nag nan la def ba xamante ak Malick lan moo indi sëy bi. encore une fois ñu koy kontaane waat di ñaan sunu borom li nga xamante ni mu ngi si yàlla bu nu dégg safaan yàlla na ko yàlla continuer di jubook borom këramaan parce que nag rumeur yi bëri woon na fan yi passé mais loolu dinañ ci ñëw léegi Amina mhm. nga seeg Malick coow li bëri na de si réseaux sociaux yi surtout nag fan yi lan mooy problème bi lu xew parce que tey ay nit sax demoon na du ba naan Amina ak Malick divorce nañu Malick da nga ko ñëw fekk ko Amérique mu nekk nit ku bon nit ku yées jaaykatu dorog euh, trian sàcc da nga gis loolu ci moom. Um, Californie nit dafa lëndam mënoo ko xam. Hmm. nit dafa ko xam moo tax man li ma naan sama doom duma la juger samay mbokk duma leen juger jëkkër ci nob la di la laay yem mais nit kenn mënu ko xam. mais lu dëkk rek dëgg la lu dëkk dëgg la hmm. man avant ma fi ñëw li Malick def ci dëkk bi mënuma ko xam parce que duma ko gës parce que yàlla tax moo ma ñor dëgg parce que man ku may àndal jéemumaa xool sa passé te man dinaa fexe ba présenté la sama passé ndax damaa fier ci sama paase man noonu laa bëggee góor gu ma déglu ma wax ko sama passé mais duñu la jox sa chance ndax dañuy foog ni genre konan ko man sama place mu ne man sa place ko ki yuma de ñoruma de ki nga doon moma ñor mais man man dama bëgg ko xam sama demb ndax sama mhm. demb man moma ma sama tay. macha allah vie bu stable xalé bu jovial yaru bëgg ay mbokkam. yeewu ndekkee ndox sa famille ndox sa famille kafree reetaan tok ci buntu kër gi ba tëdd jot ngeen tëdd motax man sama passé awma luma ci. ragal a nettali aw ma benn paase bu ñaaw mais tamit dama xamee ne yàlla nit du nekk jàmbaar yàllaa lay dimbali dama nangul nit ñi am passé bu négatif seen passé mm-hmm. ba tax na Malick man xaw ma passé ma mm-hmm. du ma nopp kenn wala ma bëgg la du sama doom du samay mbokk man du ma ne kenn yàllaa ngi tudd gisuma la mm-hmm. mais li ma dund moom laa mën a seede damay sëy yàlla tax mais ci fulla rek laay sëy dëgg nit di nga am loo bañ ci moom waaye di nga am loo bëgg ci moom ba may dugg ci moom dégg naa lu baree bari hmm. mais man li li ma nit ñi di wax ci Kaliphone ñoruma ndax man damaa dégg giwin te duma giwin dégg bandi te xaw ma luy bandi dégg sàngara te musuma ko essayé ci àddina barki bañ demee benn restaurant si laa naan jus bi nu mu tudd mu ci laa naan benn mu xitoo mu xaw a weex rek ma ne ko Malick lii dafa am alcool leeruma ndax am na wala amul mais loolu tax na ñemeetuma waat ni musuma naan alcool damaa ñem mu weex rek ma ne ko Malick lii dafa weex te xet gu bon googu yëpp teg nañ ko ci sama kaw te xam naa ne amul moo tax man duma la juger Kaliphone man duma juger nit ba keroog ma lay jàppal laame dans le sang bu boobaa nag ci ngay xam kan nga nekk hmm. ndax macha allah moom bu taxawee ne ñuulul ñaawul ñàkkul masta man mi nga xam ne jigéen gënuma adorable man gëm sama bopp tax na sëy rek laa bëgg mais bu ma gisul lu ma xam kenn du ma jël si <laughs> Kaliphone Malick baax na li ñuy doyee góor mi ci Malick mooy malik saa yu yeewoo cinq heures du matin jug di dugg ci douche bi pour sangu sama xol bi day naqadi te Malick musul tardé liggéey fajar gi mu yeewu di liggéey yi rek damay toog naan man suma yàlla mënoon defal xéewal kii di mënuma si dara fajar mu dem liggéey génn kër gi Kaliphone Malick lum am ay mbokk ma ko lekk muy mm. leen wax Mm-hmm. Malick lu am Kaliphone ay mbokkam ñoo ko lekk mm-hmm. Malick am na jom Malick buggul ku ko yeb nangu naa liggéey alalam mm-hmm. ba weer dee mu jël ko jox ko jaam yi lii laa xam si Malick am nay défaut nag comme man comme yow comme ñi ñuy seetaan waaw waaw mooy Malick li mu def xolul samba ngi taxaw xolul demba ngi taxaw daf koy def. mais bama ñëwé yu bëré bëri wax dëgg fa yàlla ku xamoo malik démb ak ku ko xam tay xamné xamal na ko ne ko malik yow do américain. commencement bi su ne ko mais yow Malick yow doomu julli doo américain bu ñu man américain laa ndax seen passeport ma ko non dañ la ko aal yow yoroo passeport américain boo xam yow du juddoowoo fii mm-hmm. fii su ne man waa maa lii maa yi ma ne ko Malick mu ne ma ne ko gisoon nañ fi Ndiouga Kébé te ñu ko ràññee bariwul gisoon nañ fi Djily Mbaye te ñu ko ràññee bariwul mais gis nga nit danga koy nangul souvent ni ko yàlla bindee laaba la du dara nu na jaar-jaaru démba metti gu mu metti ak nu mu woon ndeyam te ku tekki bëgg ngaa woon say noonu ndey ak say noonu ni waaw yàlla ñëw na mm-hmm. te amul jotu chaque jour mu jël euh, avion dem Sénégal ba nit ñi xam ne ah kii de ndeyam fii la sonnee woon dëgg la building yaa nga fa macha allah ku dugg këram xam ne njabootam a ngi ci jàmm mais ku ci nekk kali boo tukkee yàgg lay tax nga ñibbisi mooy ña nga bàyyi woon xam ne ñëw nga tekki nga. Hmm. boo koy jubbanti boo deful nànk bu ndam. am na yu bari yoo xam ne wax dëgg fa yàlla du sama njàmbaar mais yàlla dimbale na ma ci. mi ngi wécceeku ndànk-ndànk mi ngi changé. parce parce que man damay gis nit ñi souvent mm-hmm. lu ñuy wax Malick danoo ne dafa bëgg wanew dafa bëri tiitar mm-hmm. parce que man dama yaakaaroon defoo góor mm-hmm. buñ koy wax kii dafa ñàkk jom parce que lan bëggul liggéey wala kii dafa ñàkk jom parce que day dóor jabaram kii dafa ñàkk jom parce que day bàyyi jabaram du ko teral di dem di doxaane ji teral yeneen jigéen ci biti kii dafa ñàkk jom parce que réussirul vie mais kii dafa ñàkk jom lan la ñàkkee jom day sànca lu rafet di wane ne am na xaalis est ce que loolu ñàkk jom. est que euh, kali jom mais bu lu ëpp tuuru lii may waxanteeg yow rek am na ci ñoo xam ne ñi ngi jooy ndax kontaan. am ci ñoo xam ne ñi ngi may apprécier mais tey am na koo xam ne mi ngi jàpp ni maa ngi waajal victoire du ko neex. ndax Malick bu dàjjee paquetu xaalisam di ko baatre kooku moom la concerné man duma ko def hmm. ku ne ak ni ngay xalaatee parce que lépp étape la kali am na loo xam ne dangay xool boo yi toll ci nga xam ne kali yow romb nga étape boobu xëy na moom ci étape bii la toll am na ñu fi jaaroon tey baatareetuñ hmm. soit àddina da leen di jey ñu ñàkk li ñu am wala seen liggéeyu ndey jàpp leen ñu dem ba dépassé lii hmm. ne ax ah, man de lii booy la nga dégg nit ne la man lu ma deful amul mm-hmm. léegi man mii jabaram li ma mën mooy di naxante mm-hmm. parce que nit boo ko bëggee buskule da ngeen di sëy mën na laa jéppi commencé wàññi mbëggeel seen diggante jéppante am te sëy bi yàlla tasagu ko ndax sëy yàlla mi ko takk rek a koy tas mm-hmm. nit ñaa ngi tribunal di laaj papier divorce munuñ cee jot ay at nit ñaa ngi ci kër yi di xaar seeni baat nit ñaa ngi sëy ak seeni jëkkër kenn mënu leen a fase kali yaa ko jëkk dans la vie yàlla kese moo fi nekk boo ko gëmee nag doo daw doo ragal doo tiit doo sonn maalik bindul boppam hmm. tey bu doon Malick moo bind boppam day xool ki gën ci àddina mu sol mbubam hmm. mais man dama naan comme mm. mi ngi biir Amérique te mucc mucc na ci drogue mm. mucc ci sàngara mucc ci cigarette mucc ci fanaan àll ci góor man mm. sama jëkkër musul toog di heures dugg siwul xanaa ba sama doom commencé école ci lay wàcc 18 heures ndax il faut que mu toog bureau ba xale bi wàcc mu dem jëli ko gis naa ci moom sol lu set bëgg lu baax nangoo liggéey xaalisam ba pare mën koo maye te ku mën a bégal nit ñi nag te yow Malick nit ki da koy xam ba pare nangul ko ko waaye ngay naxanteeg moom naan ko xoolal diw li mu am. daa def ni ngay def. Hmm. ngeen jote ci bu tëddee dina xalaat. Hmm. d' accord ok léegi dama bëgg nga teg foofu sa baaraam. Mhm. dinañu ñëwaat la temps ngay noppal parce que y' presque dix mille ba douze mille personnes toog di seetaan am na ñoo xam ne bëggoon nañu ne Kali may ñu occasion ñu wax ak Amina. dem leen ko bëggoon may muy sama fii nga xam ne samay followers lañu euh, merci Euh, jël leen rek xëy na am na luñ la bëggoon a dolli nga déglu luñ lay dolli donc gars yi ma jël benn par benn rek ku dugg tamit rek gàttal parce que il est une heure vingt du matin Europe temps bëriwul ku dugg rek lan la bëggoon dolli tey Amina wala tey kii xëy na mboq mi sax dinañ bëgg dugg ainsi de suite comme ça ñu ñu ñu ñu jël gars yi ñu déglu seen seen ay intervention on tapote la famille dinaa leen jël yéen ñuy def demande benn par benn laa ko bëgg def nga xam ne du am coro coro comme ça ñu déglu allo salaamaaleykum la voix ubbil ah, man kay déglu naa ko et ma gis sincérité ci moom nit ku dëggu te loolu dafa am solo ci nit. parce